yéen sunuy baay sunuy ndey sunuy nijaay ak sunuy tànt ak sunuy bàjjan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar imam Maktar soxna Yaasin ñu ngi leen di ziar di leen nuyu bu dëgër bu wér ci ni ko yàlla santaane te jullit di ko doxale li ñu fi dajale tey nag bu doon jullit la buy ñaan rek du ñaan yàlla mu dajale ñu fi tey duñ ko ñaan yàlla mukk abadan kii fi jóge tey te waral toogaayu Ousmane Sonko bi ak njabootam ñu koy wax Ibrahima Fall mu bokk ci njaboot gi ngeen yar ko def ko ni nga xam ne noonu la askan bëggee ay doomam mel moom day mataloon na ko lool. am na ku may waxal tey suba ma ne ko Ibrahima Fall dafa dajal moo tax mu dem Ibrahima yaru na Ibrahima tey na. Ibrahima du jëw Ibrahima mokkal na liggéeyam léppam set na man bindal naa ko tey suba ne ko Ibrahima yow sa mbalaan set na ndax sa jikko ndax ni sa jikko sete woon bul ragal dara Ibrahima moo yor appareil ñu koy wax objectif mu taxaw ca ginnaaw objectif ba lépp lu ñu war a tey ci kaw miir di ko tey ci xel ci xool ak ci xef Ibrahima matal na ko ci liggéey bu set Pastef rafet na Ousmane Sonko rafet na ay kilifaam rafet nañ ndax liggéey bu set ci Ibrahima matale na lépp buy seet si kii di waxtaan ak moom Ousmane Sonko mii yenn saa mu yëkkati ay baat tubaab ba kii ba naan ko yow yow xanaa français nga yow xanaa xanaa lan nga ndax teeyam teeyam teeyam teeyam nee naa ko nag Ibrahima. yow day yaa daan dàkk di diir di tiire ci kaw nit ñi ay image mu jekk loolu te rafet tey nag yow yàlla ki muy yónni muy mawt dàkk na la diir na la ni nga daan ni nga daan ñàkk a moye say tiire yow moom du moy du jaas dàkk na la wallaahi jàpp na la dal na ci sa kaw waaye tamit lu ci mënti am dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax nag ñun ñoo wuyoo baat boobu ñun ñoo wuyoo diina jooju saay su yàlla dogalee ñun dañuy nangu saay su yàlla dogalee dañuy nangu dama ni bis bii day ku toogoon fii di ñaan doo ñaan biis bu mel nii dañuy dajale fii ci Ibrahim ñu wutal la soxna matul fukki fan nga dëddu yàlla rek moo ko mën te du tàggu kenn lu ñuy def daal mooy nangu te ñaanal ko moo tax ma waxaat ko ne ko Ibrahim moom malaakal mawt dàkk na la dal na ci sa kaw du lajj waaye ñun ni dinañ la diir dinañ la dàkk dinañ la dóor ay ñaan dinañ la ko dóor ba mu dal la lool ba nga yëg ko dinañ ko ñaanal ñaan yu amul àpp yu dul jeex ñaan yuy daw ba abadan dinañ ko ko ñaanal ndax kilifa la woon ci ñun ku ñu fonkoon la ci ñun gàtt na tuuti na ay atam bariwul lool waaye ku dijj la woon ku mat la woon ku mak la woon ci suñu biir moom mii mënut a yëkkati ay kàddu man de jafe na ma trop sax tey jii ndax nee naa ko ñun de duñu jooy tey duñu jooy tey ndax yow yaa wax ni ay combattant lañu combattant yi fa ñuy daanu kenn du leen tiim fa jooy dañ leen di sargal di leen màggal dinañ ko sargal màggal ko moo tax ñi ngi jaale njabootam yëpp ñi ngi jaale soxnaam di jaale wéyjur yi usman ñu ngi la koy jaale ndax ku ñàkkit yow ñàkk nga Abdoulaye ñu ngi la koy jaale ku ñàkk ñàkk nga Pastef ñu ngi leen koy jaale ku ñàkk yéen ñàkk ngeen ñu ngi koy ñaanal yàlla bu ko ca jiitu ca bàmmeelam yàlla na ko yàlla xaare aljana ñun de am nañ njort yàlla na yàlla dëggal suñu njort ne Ibrahima de buy xippi aljana aljana ci wetu sunu sang bi sallallahu alayhi wa sallam fa lay yeewoo lii moo nekkoon kàdd yi ñu bëggoon yëkkati muy kàddu yu diis te jafe ñu ngi sant yàlla ba mu ñu mayee ñu mën koo yëkkati ci teey ak làmmiñ bu ñu bu ñu jàpp ni war naa mën a set ngeen baal ñu wax salaamaaleykum wa rahmatullah